bëgg noo dimbali rek tax mu yëkkati lu toll ni liggéey bi ci biir kër sëriñ sax mu yëkkati ko jox na ko loolu day am nañu ci mbett moo xam ni ak xéewal yoo xam ne mënuñ ko woon yaakaare feneen fu dul fii ba tax na maa ngi woo bokki jullit yépp ci lii ndax njariñ la ndax xéewal la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 liggéeyal Serigne Touba egsi na ndax lu mel nii kat daa jafe waaye fii ko fi tàbbi da nawaat sëriñ Cheikh dañ ko bëggaat nii mu def kër sëriñ Saliou gi ni ko ni mu ko defaraate nga xam ni kees gu ne def na fay bâtiment defaraat ko euh, mooy ki gi jëkk a bëgg Serigne Saliou Serigne Cheikh ndax lii mu wone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 te ci moom lay jóge li ma leen di wax mooy njariña ngi sëriñ bi dimbali nañu woo nañu jox nañu ndigal ndigalul sëriñ Touba nag daa yombatul te moo ne nii képp ku bëgg a jariñu na ñëw. ah waa Sénégal gépp laa ci woon. lii moom day day loo xam ni da ko da mënee su ko yéene rek ay ay kenn dama ko yéene senegal gépp képp ku àdduna sépp képp ku yëg.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 sant nañ ko ci ndax sunu yokkute la ak sunu njariñ waaw. jërëjëf ndax jàpp nga ne liggéey bi dana yegg fii ak uh, màggal. liggéey bii waaw waaw incha allah loolu nag moom màggal gi moom sori na liggéey bii uh, ci ci ayu gi rek war naa mën a yegg waaw. waaw camion yi tàmbali nañoo ñëw suuf saa ngi fi ñu ngi déca décapé bi presque pare na suuf si ak xeer yi tey dina yegg kon suba la ñuy tàmbali di ko sëkk jàpp naa ni fii ak ci ñaari fan gën gaa bari moom noppi